bu sëñ Cheikh ñëwee ñu leeral ko ci kanamam ndax dafa wax ne wax bis bii dama bëgg ñu taxaw di seet bu baax ndax damaa am nag ay góor am nag nay ñoo xam ne dañu samay taalibe may seen jiwriñ kalaat seen Cheikh mu Mbàkke Fadilu moom seen Fadilu ñu bëggoon rek nga xam ne fédération bi mu am ñu fédération Daaru Salaam sëñ Abdou jiite ko ak sëñ Omar Gueye ci baykat yi ak mboolem ñu ñoo xam ne ñëpp seen Cheikh moom la ñu xamal ne dégg nga lool ndax lii jii ci bis bii taw bii lim jii ci dëkk bi ku mën a ñëw ci bis bi rek jàmbaar jàmbaar sant bu baax a sonn ngeen lool ndox bi bàyyi na lool waaye bàyyi ngeen lépp di alal di sëriñ Cheikh bi bàyyi fan yi waaye nag sëriñ Fallou ñëwul ko daax tey di sëriñ Fallou fu la neex xamal barka laa di fa ñu loolu santaat ba ak di ñaanal ñi nga xam ne ñoo doon ñu fàttaliku ñi ay jàmbaar yoo xam ne kenn dootu leen fàtte ki ci jiitu di sëriñ Mamour Mbacke di sëriñ Fallou yal na yàlla doon ci moom ay ngërëmal yàlla ay leer doomam di baax ci teew na muy sëriñ Bara Mamour am na délégation bu am solo. ànd ak délégation muy Serigne Moustapha Sylla Baye Fall mu Serigne Cheikh bi Mbacke Fadil ñoom bi ñu ñaan kenn rek lañ Serigne Moustapha jërëjëf waa sant nuy jaar bu baax ak di fàttali ko ak di ko ñaanal Serigne Gass Mbacke bi Serigne Modou Bousso Dieng Serigne Gass nit ku yiw nit ku baaxam waaye nit ku bëggoon baax Serigne Gass Mbacke bi Serigne Modou Bousso Dieng yal na yàlla doon ci moom ay gërëmal yàlla ay leer waaye di sant ko waa jàmbaar Cheikh Abdourahmane Fall Jilaani Xaadimul Xadim jàmbaar yi noonu Cheikh Ibrahima Fall jàmbaar yi Cheikhul Xadim la woon taalibe Cheikhul Xadim la woon bu bëggul mu Cheikh Abdourahmane Fall moom yal na jooy suñu ay gërëm ak yàlla ay leer léegi jërë jii toog mooy président fédération Daaru Salaam sëriñ Babacar nii nga xam ne yàqu liggéey bi day yokk liggéey bi waaye daa defar liggéey bi noo ngay sant bu baax a taxawaay jërëjëf bu ko defee dañuy teelu lu man fukki minute ak juróom ñu jox sëriñ na ñu xool plateau yi nga xam ne moom la ñu daan def ci bis bi kenn ku ne xam na ne loo bëgg la dégg ci sëriñ Fallou wala ba mu góorgóorloo ba ci yàlla dana mutala yaakaar naa ne balaa nga dégg nañ ko ci moom wala nga bëgg koo dégg ci alaaji sëriñ Cheikh ne maa nga fàttali kon sëriñ Maxtaar moom sopp na yow la ñuy jox nga tàmbali liggéey bi waaye bu mel ne jëw na liggéey bi liggéey bi ñëw na soxlaa ngi fay na sëriñ Cheikh bi maa nga fàttali kooku ñu dugg si mooy jëw na liggéey bi soxlaa ngi fay na Serigne Cheikh Oumy Mbacké Fadilou jàmbaar bi kooku mooy dugg si soxna ji fay mu alaaji Serigne Cheikh Oumy Mbacké Fadilou ndey daal ngay dugg si la ilaha illallah soxna ji fay mu alaaji Serigne Cheikh Oumy Mbacké Fadilou ndey daal yaa ngi nii mooy dugg si nii ànd ak une forte yaa yokk liggéey bi yaa jàpp liggéey bu ko defee nañu ko dalal moom mi ko àndal mooy jëriñu liggéey bi soxna yi fay alaaji sëriñ fay la ñuy wax baayam représentant sëriñ Tuubaa ci Pikine baayam la liggéey sëriñ Tuubaa ci Pikine moo doon représentant ko sëriñ Mame Badiane Pikine soxna yi fay war naa mën a àndal sëriñ jéem mi bàyyi ko fan yi di ko liggéeyal mais jàmbaar loo bëgg lu baax mën lu baax yokku bëri waaye laaj na ko soxna Aliou Faye mu laaj seen Cheikh muy laaj sa yoon jërëjëf léegi sëriñ Maxtaar sopp na ñëwal nii xëy jëg si bu ko defee loolu mën a tënkal ci fukki minute wala ñaar fukki minute maanaam sëriñ Cheikh di ñëw sëriñ Modou dara laaj dugalaat ko ñu doon bëgg a tàmbali ci cérémonie bi ok lan nga may indi ci Serigne Fallou Cheikh Mamadou Mourtada ak El Hadj Serigne Cheikh bi Macky Sall loolu lañ doon waxtaan. ki ñu doon xaar yegg na El Hadj Serigne Cheikh bi Macky Fallou Baye Fallou Serigne Fallou le marabout de la jeunesse El Hadj Serigne Cheikh bi Macky Fallou maa la ko wax. waaw man sa ñàkk rek nañ leen daal ko defee Serigne Maxtaan yéegala bi ma tolloon ndax délégation Cheikh Mouhamadul Mountakha yegg si nañu ñoo ngi ciy ñëw léegi délégation bi bàyyi ko ci son excellence le président Macky Sall yegg si na ñoo ngi ciy ñëw monsieur le maire ci commune bi nga xam ne seen mi foofa la nekk ci Pikine yegg na monsieur le maire Amadou Diallo ñëw ci ñëw léegi bu ko defee ñu xaar rek délégation yi yegg si ñu tàmbali liggéey bi na ñëw na ñëw kii ñëw bàyyi leen ko mu ñëw mooy alaaji sëriñ Xaalim Gueye jëli ni alaaji Baara Mbàkke fan yi ci Dakar moom nag sëriñam Cheikh Abdoul Fatah doomi alaaji Baara na yegg si mooy jëwriñ alaaji Baara ca Dakar borom kaan boobu di ñëw sëriñ Xaalim Gueye mu alaaji Baara moom nag sëriñam Cheikh Abdoul Fatah ci bis bi sëriñ Makhtar yow la ñuy dégluwaat lu mat cinq minutes le professeur Djibril yegg si na bu ko defee thème bi dañoo waxoon ne sécurité mooy kan bi ak suuf sécurité ci réew mi ak stabilité mooy kenn fii ñu toll ci débat bi ci dëkk bi bu ko defee sëriñ Maxtaar yow yaay ko gàtt euh, jërëjëf Alaaji Si noo ngi lay sant bu baax nag di la ci taxaw gi nga taxawu liggéey bi boobu ba yendaloo fanaanaloo yal na la yàlla fay noo ngi siyaare sëriñ bi di yeesal sunu pas-pas ci moom ndax faa jébbaloo rek ma am la di siyaare yi mu àndal yëpp bu ñu sa ko tamit Mbàkke bàyyi suñu Cheikh Jorel tudd nañ ñi rakk waaye suñu sëriñ Xaji Fay Xaji Marème Fay moo ngi lay di la sant di la gërëm ci sa taxawaay kër sëriñ bi di la ñaan bu baax ngir yàlla ngeen jublu. wante nag sëriñ bi rek mooy njëriñ bu baax sama grand frère sama xarit euh, professeur docteur sociologue bu mag bii ma dendal muy Serigne Dibli Jaxate mii ngeen xam lu jàllale Sëriñ Tuubaa bu bu bu mag bu ma xam lu jaxasoo euh, maa moom. jërëjëf ak ñu jox sa wàccuwaay waaw li ma nekkoon ba si ji yomb na lool damay wàcce sama kàddu tënk rek jox ko ndax waxtu wi jegeñ na ca akara bu aw laa lu jigéen gën a yee man ci mbooloo bi sëñ bi laa bokk dama dugg bi rek ma di leen fàttali li ñu sëñ Fallu defal sëñ Fallu dafa jàngale jom jàngale muñ jàngale gëm yàlla jàngale gëm Serigne Touba jàngale naw sopp nawle jàngale yërëm ñu daal ko nii yërmaane ji nekkoon ci Serigne Fallou kenn mës koo gis noo ma sa ñëwee ci moom ak loo ñëwee dina fexe ba mën a dund ak yow dina fexe ba mën a saafanteeg yow dina ma sax fexe ba mën a wax ak yow ak façon boo indi moom nag li mu def ci Touba doomi Serigne Fall du tudd tudd nga morom waaye kii Serigne Fall kii Serigne Fall xel bi sëñ Fall sëñ Fall moo wàññi màggal gi ñëw baax mu ñëpp di daje mu bëgg ñëpp dañuy wut kenn sëñ Fall moo tabax marché Ocass Touba sëñ Fall moo indi courant bi Touba sëñ Fall moo taj forage su Daaru Banaan Touba sëñ Fall moo nekk dëkk bi bàyyi ko yaatal ko. ba kenn ku nekk am kër gu yàgg Touba Mbacké dëkk yàgg Touba Mbacké dëkk moo ci gën a yàgg di kër moo ci gën a rëy loolu la ko ko doon ci Sëriñ Touba bàyyam moom sax am daal bu Sëriñ Touba la ndax jaay bu la ñu ñëpp xam nañ ko kon da ko doon ci sëriñum Sëriñ Touba ndax moom sëñ fan da ngay wóor ni Sëriñ Touba kër bu mos a bàkk da nga naa ab tool lay bàkk moom noonu la meloon Sëriñ Fallu moo yaatal Touba diggante cinquante neuf ba soixante trois jumaay bu baax seen mu julli jumaay ji jiite ko bu wax ne man maay Sénégal sëñ Tuubaa sama baay Alaaji Maalik sama nijaay Sénégal jeex na maay sëñ Tuubaa li fekk ngeen may gis sëñ di gis su ma fi jógee ngeen jóg a def ji doole sëñ Tuubaa Sëñ Fall waaw Sëriñ Fall damaa commencé ñëw ci moom ni ko damaa bëggoon nawet bi dafa jub si te Mbàkke aw lu ma bayee man am mbaam sax amee bayee te bu doon di Sëñ Fall mbaam mu am doole mu daal di daal bi jëlal mbaam bi jox waay bu leen déglu xisaab bi de dig leen déglu leen difi si Sëñ Fallu ji maanaam dimbali nit ki fi nekk ak raxas gi ñu raxas ki ñaan ci boppam nit ak li nga xam moom lay jàngale loolu laa bëgg ngeen déglu ko du xisab yi xisab yi ñëpp ko miin waaye li muy jàngale laa bëgg ñu bàyyi ko xel daa am ku ñëw am soxla mu war a fekk soxlaan daal di ko ne mbaam la bëgg am mbaam bi fi mu am doole nan ma ko jox kon bu baaxul dem gis ci mbaam bi gis mbaam bi doole bi mu am mën naa am sax muy ñaan waaye lii ko waaj moom suñu xol bi day yéene mbaam bi te moom suñu wax dafa du bii mu ñëw ni sëñ bi mbaam na fori na sëñ bi ni ko ah mu naan sëñ bi daal di dawal yéemaane xool waa ji daal di kii tasal kon léegi ma nga bañ a tas yaakaar ñëwaat na ko bu bañ a tas yaakaar tax mu ni ko dama ci wuddee fa su naaru borom fa nekk nga jox ko kon dëgg lii koo fa dem ba nga jël naaru góor xam ni mbaam bee tane naaru góor bi ndax man sëñ Fallou Faral laa doon yéene mbaam bi waaye naaru góor bi upp kon moom iñaan gi muy iñaan dafay moo war a dogal yi moom mi ngi sëñ Fallou ko ciy jàngal mu ñëw ñu ko bàkkee de mbaam ma far na ñëw mu ne ko booleel fas bi ak mbaam mi far ko jox loolu tam àgg na ñuy ñu nekk ci sëriñ bi boo ci mën a jàngee bu neex bi rek mu def ñoom ko bàkkee daa man ko ñu wax ñu bàyyi la man ko ñëw dégg ko bàkkee de dañu laa yónni ci yow ànd ak mbooloo bi ñuy saa seen far bu ko nii la ko ne Mbàkke ma ne dañu laa ñu ne ko koobal àggal si ko mu ñëw du ko si ko ci man mu ne ko mbëtt xam ngeen mbëtt mbëtt ma yow sëñ far ak xool seet ngi dégg ko lu la mbëtt wax mu ne ko mbëtt nee na mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm ndax nee na bi nga dooree xalifa léegi nee na xar yi nii rey ak gërëm yi ak nag yi ak togg yu neex yi tax na kenn dàqatu ko ba mu dugg ci am paxam mu xeet mu mu rëcc ko ba mu génn mën a ko lekk leen bi sëñ Fall daal di génne ji bi ni ko am mu xool mbët waaw ko parce que xam na ni kii daal doon boo laaj sëñ Fall man naan saa bopp la di biir bëgg koo layaat waaye bëgg na koo tàcc waaye tàcc lu mu ko tàcc xoolal ni ci sëñ Fall Fall jàngale da cee jàngale ni bu la waaye andil ci àdduna ak lu mu ko war a bi loolu la si tool yi tàggat waaye léegi ñu bëri interprétation ak li mu wax dara ñu wax lu ñu wax nag ñu ne ak ah, lu tax wax ko kenn ku ne ko féetale ci lu ñaaw loolu moo xew léegi. kon nañ dellu si waat nañ dellu si waat yërëmante saa su àndee yéenante jàmm te yàlla tax bu ñu yéenante jàmm rek jàmm yàlla sëñ Fallou nekk boo yéenee ñëpp jàmm du tax ñëpp suñ fan loolu rek mooy may jàpp nu yërëmante di dimbalante te yàlla tax di nga lii sëñ mu taxaw wax bi mu ko waxee rek ci sax taw bi du yàlla rek bindul taw bi rek bu mul jàmm rek da leen ko fàttali fa zakkir ina zikra tanfa'ul mu'minin loolu la wax gisal fàttali képp mooy jëriñ ab jullit te bu fekkee bu la dee wax ba fàttaliku mooy da ngaa da ngaa dëgër gënëm ne bu fekkee ab xolam leer nekk bi doo ko fàttali ci yàlla lu fàttali boo waxee mu ne ak kii da wax na jàll te alxuraan li tax ñu laaj wax dong la def alxuraan daa wax jëf ki jëf nag moo tax alxuraan di wax ngir mu mën a jëf kon nan nan góorgóorlu sëriñ Seex mu ngi lay ñaanal bu baax Mbakke yàlla yàggal taxawaay bi noo ngi ñaanal bu baax ñi fi teew yëpp góor ak jigéen di siyaare sama jigéen Yacine Samb rajo bi Yacine Samb maa ngi koy siyaare di ziare délégation bu jóge ci kër Soxna Bali Mountakha Mbacké sama yaay sama bàjjen sama xarit moo jàpp sama loxo ba ci suñu Mountakha wala ñu loolu mag maa ngi ziare délégation di ziare bu baax mboolem euh, Amadou Diarra problème bu dëpp dina koy ziare lu tàggkat yi yonent yi nekk Pikine moom ku ko ci gis rek léegi ci saal bu ko ci fekkee la ba dafa tànk kon aji fay ma ko leen ñëwaat ak waxtaan ak seen kii yëpp di tàmbali ci mbokk ba ba ci mbay mi ñëpp. sëñ bi si rajo sëñ bi moo ngi lay ñaan ndax yàlla yàlla guddal sa bopp liggéey bi rafetal nga ko sonn nga ci waaye sëñ Fall teel ko tàmbal tey moom ñëwul ko daal ndax ñoo ngi wàcce foofu suñu kàddu li ci des di bàyyi ko li ci des wasalaamu aleykum wa rahmatullah. Cheikh Makhtar dégg na loolu waaye noonu ne bu baax ak di ziar délégation bi nga xam ne. ñoo bàyyi ko ci jàmbaari Seexul Xadiim borom mbégte mi yal na fi yàgg lool tànn wér muy Cheikh Mahamadul ci barkeb Seexuna Ahmadul Xadiim borom mbégte mi yal na fi yàgg muy Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na njawaayu boppam Serigne Cheikh Fatma Serigne Moustapha Bachir Mbacké waytu noo ngi koy jox wàccuwaayam bu baax muy délégation Cheikh Mamadou Mountakha ak kii toog muy Serigne Fallou Mbacké moom Serigne Cheikh Mbacké jàmbaar la bëgg loo Serigne Touba Xaadimal Moustapha doon kenn Cheikh Mamadou Mountakha noo ngi koy jox wàccuwaayam bu baax a baax noonu la ñuy siyaare tamit Serigne Cheikh Jolène Mbacke ñi ñu ku yàlla baaxal borom Mbacke bàyyi borom le 10 août noo ngi lay jox sa wàccuwaay bu baax moom mi ne fii ne fii la ne tey Serigne Baraka ko fa teg mu nekkal ko Serigne Fallou Mbacke muy barabu Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke allez sa jërëjëf yàlla yàgg ci barkeb Serigne Touba noo ngi siyaare bu baax jàmbaari Cheikhul Khadim muy Serigne Khadim Lo Gaydel borom ndam kii ko Serigne Khadim Lo Gaydel borom ndam kii xam ne moo toj àll bënn forage taxaw daara alquran yi taxawal jàkka yi xarit dëgg dong yi taxawal ci baatu laa ilaaha illa llaah ak ay xasaay sëñ Xaadim loo koy del borom laam fajkatu aajo baa kii toog sëñ Xaadim loo koy del borom laam kii borom axlaaq jërëjëf sa teewaay waaye li ngay ñëw am na jàmbaar muy sëñ daan njëgën moom sëñ Baro njëgën ci Thiès Ahmadou Baro njëgën ci Thiès noo ngi lay jox bu baax sa wàccuwaay di am mbégte lool sa teewaay waaye noonu si àll ba sëriñ Hamsatu Mbakke moom sëriñ Subayru jàmbaari borom Daaru Muxti ki xam ne moo ne daal na Pikine di defar dongo yi ak di taxaw dongo yi dongo lay dox baax sa wàccuwaay waaye noonu si àll ba Cheikh Abdoul Fatah Mbakke moo laaj ma woon Lamine Ba waaye noonu si àll ba Cheikh Abdou Samad Mbakke. mu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara moom Sëriñ Fàllilu Cheikh Abdoulaye Mbacke ñoo ngi lay jox sa wàcc Cheikh Abdoulaye Diakhal ñoo ngi lay jox bu baax sa wàcc waay Mbacke waaye ñoo ngi ziar bu baax Cheikh Abdoulaye Diouf Fall moom Cheikh Abdourahmane Fall ci laale Xaadimul Xadiim kii bàyyam dañu koy laaj ba xamal si bis bi wax naa ko sànq muy Cheikh Abdourahmane Fall ci laale Xaadimul Xadiim bi muy ñëw ànd naa rakkam yépp loolu lay jox bu baax a wàccuwaay Cheikh Abdoul Aziz Fall mu Cheikh Abdourahmane Fall ci laala Xaadimul Xaadim nee naa ko ni sa bàyyi boo ñu koy yëpp waaye wàññi woo ko taxaw nga njaboot gi waaye jàppale nga njaboot gi Cheikh Abdoul Aziz Fall jërëjëf sa taxawaay waaye ñoo ngi nuyu bu baax délégation bi nga xam ne ñoo bàyyi koo ci son excellence le président Macky Sall mu yebal ministre conseiller muy le ministre Arona Coumba Ndoffène Diouf muy sëtu Buur Sine Coumba Ndoffène Diouf yow war nga fee mën a ñëw ndax sa maam moo seere woon Cheikhul Khadim sa dëkk boobu la rek alaaji baaram yi na ko lool daal fa ànd ak jàmbaar jii alaaji sëriñ Cheikh mi Mbàkke fàttilu kon war ngaa mën a ñëw fii ndax fekk koo xam ne commune la Alaaji Serigne Cheikh Oumy Mbacké nii dëkk loo Alaaji Serigne Cheikh jàpp loo Alaaji Serigne Cheikh waaye loo Alaaji Serigne Cheikh mu ngi monsieur le maire Amadou Dia di doomu Pikine di nit ku bu yàgg baax la waaye nag noo ngi lay nii rek nga koy defee seen Cheikh lu mu xewle da ngay jël ay kaar kasu rajab bu jotee su màggal jotee su ñu def garaatiyaat nga naan moo leen di sëriñ Cheikh sama sëriñ waaye sama xarita jërëjëf honorable député monsieur le maire Amadou Dia ma ñëwaat ci madame la ministre Awa Niang député bu baax bi taalibi Serigne Fallou la moom ku bëgg Serigne Fallou la. kuy liggéeyal Serigne Fallou la ñu boole ko ci maral yi moo nag avec une maa ngi lay jox sa wàccuwaay bu a baax bu ko defee damay def nii rek présentation bi waaye dañuy xaar njabootu Cheikh Mouhamadoul Mourtada ndax ngi ñëw ci ndigalu Serigne maam moom Serigne Mourtada ndax xam ngeen bis bi Serigne Mourtada màggee nañ ko tuddee Ibnu Xaadimal Mustafa ñu teewluwaat bu baax bis bii Serigne Cheikh waxtaan bi dañ koo teg ci sécurité ak stabilité ci réew mi loolu mooy thème journée bi sécurité ak stabilité bu ko defee moom la bëgg Jibril Mare professeur Jibril Jaxate dugg ci am lu mu ci leeral bu ko defee ñu doogu duggaat ci waxtaan bi waaye sëñ Cheikh luñ fiy seere tey yow lañ koy seeral ndax yaa ngi Cheikh Mamadou Mountakha kii toog rek alaaji sëñ Cheikh mu ngi Mbàkke Fadilu ki defar donga yi ki taxaw donga ki dimbali donga yi ki xar donga yi def allah ki xar seen dënn def ci ñoom ki defar donga ki taxaw donga sëriñ Cheikh Oumy Mbacké Fadilou jàmbaari Cheikh Mamadou Fadal laa ko barke sëriñ Fadilou jàmbaari sëriñ Fadilou jàmbaari sëriñ Cheikh Oumy Mbacké Fadilou bàyyi baalu sëriñ Fadilou ah sëriñ Cheikh jërëjëf kii moo dimbali dong yi waaye moo defal dong yi waaye ak soxna Aji Fay mu alaaji seen cheikh bi Mbàkke Fadilu yow bu ñu tuddee seen cheikh mi yëpp ndax yaay ndey daara ji soxna Aji Fay mu alaaji seen cheikh bi Mbàkke Fadilu waaye seen cheikh représentant Serigne Touba ci Pikine dafa teew muy Baye Laay Njaay ànd ak njaboot Serigne Touba gi yëpp kër Serigne Touba ci Pikine jëw li nga xam ne Baaba bu Serigne Fadilu moo ne teew Serigne Khadim Gueye jëwriñ Alaaji Baara Mbàkke Fadilu ci Dakar noo ngi koy jox wàccuwaayam bu baax maa ngi ñëw ci liggéey bi léegi maa ngi jaar bu baax ak di xaar njabootu Cheikh Mamadou Fadal muy sëñ Abdou Baraka away sëñ Abou Baax sëñ Abou bëgg sëñ Cheikh sëñ Abou bi fii ci Patte d'Oie toog ne Serigne Cheikh damay ànd ak bis bi ba mu jeex ak yow ndax man sëñ Fallou la laa tey waaye yéen laay xool ci yéen sëñ Fallou signé boobu sëñ Fallou moo ngi yebal délégation baa ngi ñëw ñoom rek la ñuy xaar ngir ñu tàmbali liggéey bi bu ko defee soxna may mu la ba si da Aliou Sow moom it ci marraine yi la bokk maa ngi ñëw ci yow léegi bu ko defee nag mooy Sénégal dama bëgg dëkk bi jàmm xew fi mu am stabilité loolu tax ma def kenn journée bi tey muy sécurité ak stabilité ndax ay xale laa àndal ak ay jigéen ak ay mag ngir ñu xam lan mooy paix ak stabilité am réew mu bëggoon professeur nga tàbbi ci waxtaan bi. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu ñu ngi nuyu sëriñ bu baax a baax a baax di ko ziar di ziar sang yi fi teew yëpp di euh, def naa fii baax na fii baax na fii baax na maa ngi maa ngi fii baax na maa ngi ñi ngi sant bu baax a baax a baax ci li ñu boole ci liggéey bu mel nii ñu jàpp ci liggéey bu am solo la mu mel ni kon ci wax bi ñi ngi war a laal ci li mu gën a gaawee lu jëm ci mbirum jàll lu jëm ci mbirum dal ak lu jëm ci mbirum stabilité dafa am ñaar histoire yu ma bëgg a nekkal ñaar yëpp dafa am bu njëkk bi benn borom xam-xam bu ñuy tudd Lucien Malson moom dafa nettali ay xale yoo xam ne ay seex lañ te loolu lu am la seex bi ñu juddoo seen yaay seen ndey daf leen a sànni ci biir àll bi parce que dëkk ba ñu dëkkoon bugguñu woon a gis ay seex dañu jàpp ni jigéen bu bu wasidee ay seex rek indi jafe-jafe ci pénc bi nga xam ne jigéen bu mosoon a am seet danga leen di moom rek bi mu amee seet yi mu ñeewal leen bañ leen a faat daal leen di jël leen ba ci diggu àll ba mu bàyyi leen fa ba mu leen tegee ci diggu àll ba nag ay golo ñoom ñoo for seex yooyu gone yi bi ñu leen foree ñoom ñoo leen nàmpal ñoom ñoo leen téye di leen dundal ba gone yi màgg gone yi bi ñu màggee ba am fukki at ak ñaar ay rëbbkat fekk leen ci àll ba ñuy daw comme ay golo di yuuxu comme ay golo di lekk comme ay golo di yéeg ci garab bi comme ay golo rëbbkat yooyu daal leen di jàpp bi ñu leen jàppee indiwaat leen ci pénc bi ñu dénk leen ñoo xam ni seen xam-xam dafa màcc ci mbirum psychologie pour ñu yaraat leen ñu nekkaat ci nit waaye yooyu bi ñu leen leen dénkee bi ñu defee seen i lu mat ñaari xale yëpp dañoo faatu yi mënatuñu woon a dund ci biir nit kooku ni Michel Malson ne kon doomu aadama pour mu nekk doomu aadama faw mu dund ak ay doomu aadama maanaam pour mu nekk doomu aadama dëgg-dëgg pour mu nekk ku nite faw ñu yar ko am lu ñu def ci moom kooku ñu ngi tudd Michel Malson ki ñu yar naka lay mel bii beneen histoire ki ñu yar nii lay mel waa ji dafa jàng ba jàngam jeex mu am licence mu nekk ak ndeyam ba bàyyi faatu ndey bi bis bu yeewoo daal di koy jox ñeent fukki dërëm ni ko defal lu ci liggéey ñeent fukki dërëm ñi mooy ñaar fukki yi lay passé bu dee dem ñaar fukki yi lay passé bu dee ñibbisi mu jàppee ko noonu ay at di wut liggéey saa yu xëyee yaay ci jox ko mu jàppee ko ay at amul liggéey ba ndey ji ko di bi dee ci faatu moom day def saa yu yeewoo mu dem ca armeel daal di fekk bàmmeelu yaayam mu mu bale ko ba mu set bàmmeel bi jot nag bàmmeelu ndeyam mu mu defar ko tamit ba mu baax léegi nag ki nga xam ni moom la moom bàmmeel bi mu dendal ki nga xam ni yaayam lañ fa denc moom dafa ñëw daal di kii gaar gi armeel yi di ko kan mooy nettoyé sama armeelu yaay sama sama bàmmeelu yaay bi gis ku mu ne ko am na xale bu góor bu fi saa yu soo di dina defar bii bu paree defar bi bu dem la mu ne bu fi ñëwaatee nga jox ko sama carte ne ko na ko mu ñëwaat ko mu jox ko carte bi ni ko yow de ci ngay nettoyé maa na nga woo mu ko woowee téléphone mu ni ko yow lan ngay def mu ko damaa jàng ba pare awuma liggéey mu ni ko man de entrepreneur la damaa yore entreprise bu mag waaye nag ay doomu jigéen rek laa yor awuma superviseur koo xam ni koy dem ci chantier yi di xool li ma soxlee tabax bu fekkee ne loolu arrangé la arrangé la la nga ñëw liggéey ca ma nekk sama superviseur nekk di liggéey ci moom ba jëmmi jamono waaye ñu ko yow di sa liggéey rafet na lool léegi man li may tukki dafa bëri dama laa bëggoon a dégg entreprise bi nga nekk directeur général te it sama doom bi jigéen yi nekk fii bu fekkee ne am na boo ci bëgg nga moom bi mu bëgg la ma may mu def ko directeur général may ko soxla waaye mu ni kon moom ndeyam da nekk ca bàmmeel moo ko bëgg a liggéey moom ndax foofu mu nekkoon mu dem di ko nettoyé di nettoyé ne bàmmeel bi ku ko jël tey ci loolu la amee liggéey wutal na ko liggéey ba génn àdduna loolu sotti bañ ko suulee bañ ko suul ba la ko wutalee liggéey taxawaay boobu mu taxawoon ci bàmmeelu ndeyam di def te li may wax nag lu am la taxawaay boobu mu amoon ci taxawu ndey ci bàmmeelu ndeyam loolu ak yàgg moom moo ko def ci moom li manqué ci ñaari xale yéen nga xam ne ay góor la ñu leen borom kon dafa mel ni nit pour mu nite faw mu jaar foo xam ni dañ koy yar def ci moom yenn jikko yi borom xam-xam yëpp a nañu ni doomu aadama bu nekk dafa am benn parti mala bu nekk ci yow parti mala boobu nekk ci yow nag bu fekkee ni yaruñu la doo mën a taxaw di xeex ak parti mala boobu di nekk ci yow foo ñu def ci yow ay jikko foo ñu yow ay ay principe ay valeur xam ni moom mooy tax loolu nekk mën a ci yow nga koy doon fu mu ne te loolu nekk mën a ci yow rek moo lay poussé ngay ngay def loo xam ne du jàll di def loo xam ne ay la di wax wax ju ñaaw di xalaat xalaat bu ñaaw yar li ñu la yar ak li ñu def ci yow moo mën a tax nga mën a xeexal lu mel noonu léegi nag bu fekkee ne da nga jël adduna bi ñuy toll nga gis ni adduna bi bëri na coow adduna bi bëri na problème bu ñu nee Sénégal ñu ni bëri na coow bëri na wax bëri na fitna mais boo génnee Sénégal nga dem ci àdduna bi feneen foo nekk da nga fay fekk fay ay fitna fekk fa ay guerre fekk fay benn xam daf ci am benn borom xam-xam bu tudd Maurice Bucaille damaa bëgg ngeen teewlu bu baax li may wax Maurice Bucaille boobu fajkat la maanaam tubaab la boo xam ne day faj li nga xam ne mooy spécialité mooy xolu doomu adama maanaam cardiologue bu sa xol feebaree ci ñoom ngay dem ñu faj leen moom France la nekk. nekk koo xam ne ku ñu naw ci loolu muy liggéey la parce que ci académie française bu cardiologie ci la bokk donc du tuuti moom ci boppam moo dama seetlu su may opéré ay xol bu dee dafay dal waaye xolu keneen bu mu mënti doon dafay jax-jax xolu jullit bu mu gis ne xol boobu dafay loolu bi mu amee yëg-yëg ci boppam ci la dem Màkka Arabie Saoudite def ko fukki at ak ñett jàng alquran daal di mujj tuub nekk jullit loolu it dafay nekk loo xam ne duñ ko lu bëree bëri bëri parce que bi ko waxee lu tax nga tuub nekk jullit mu ni sama liggéey moom moo ma ci yóbbu damaa gis ne dafay nekk xol bu dal xolu jullit dafay nekk xol bu dal kon dafa mel ni kon jullit ci jàmm rek dañ ko def lii may wax nag dafa am benn tubaab bu tudd Cheikh Gelaar dama doon wax léegi sëñ bi ni waxtaan bi damaa préféré jël ay tubaab yi wax ci sëñ bi parce que bu fekkee man waaye bu fekkee tubaab bi nga xam ne moom moo xeex sëñ bi ci moom moo taxaw di wax je crois que war nañu dañ ko mën a téye Sheldon Gerard tubaab la américain nee na Cheikh Ahmadou Bamba liggéey na loo xam ni Sénégal fekkee ni tënku nañ ci jàmm rek ay am ci réew mi te bu fekkee ni réew yi ko wër tënku nañ ci loolu jàmm moom mooy am ci réew yi ko wër yëpp moom Sheldon Gerard dem na ba ne liggéey na boo xam ne bu ci àdduna bi tënkoo jàmm rek moom mooy am ci àdduna loolu nga wax fan nga ko teg mu ni fi ko ko teg moom mooy ñaar mooy bi mooy ci diine lislaam rek la tënk li mu liggéey lépp li ci topp moom mooy nit ñi nga xam ne dañoo wuute nekk ci pencum ñu nekk benn moom ñoom ñëpp bokk benn pas-pas bokk benn jubluwaay te jàpp rek di dox ci seen biir ñu koy wax di ko jëf di ko xalaat tamit mu ni bu fekkee ni kooku nit ñi tënku nañu ci am njàngale bu fekkee ni tënku nañu ci ay jëfam bu fekkee tënk nañu ci li mu liggéey nee na ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk njabootam jàmm rek la ñuy waaye lu weesu njaboot yi àdduna bi yëpp jàmm a am parce que loolu moom mooy nekk li nga xam ne moom la liggéey damay fàttali man ci sama wàllu bopp dem naa Gabon am bi ma ñëwee ci université bi parce que jàngalekat laa université dara bi ma ñëwee ci université bu Libreville bi ma daje fa ak benn jàngalekat sama naataango jàngalekat boo xam ne moom ci mbirum koom-koom lay yëngu moom mu ni ma foo bàyyeekoo Sénégal ma ne ko waaw mu ma xam nga sëñ Touba ma ne ko am naa lu ci xam mu ma man de du ma catholique du ma jullit samay diine man laa gëm ba léegi waaye nag murit laa ma ne ko waaw noo ko mën a layee mu ni damaa jàng téere sëñ Touba yi nga xam ne dañ koo dubbi ci France dañ koo traduire ci France rawatina Masaalikul Jinaan nee na bi ma jàngee téere yi ci mbirum koom-koom moom économiste la nee ci biiru kooku nga xam ne ni ma jàngi woon France ñooñu fa ñu yem fële sëñ bi tàmbalee diplôme mu di France jàngal nañ ma fa tamit dictato jàngal nañ ma fa di doon mee jàngal nañ fa ay économistes yu bari nee na fa ñu dafa mel ni fa sëñ bi moom fa la tàmbalee diplôme mu ni dem naa ba dama jël ay yenn ci téeréem yooyu jël ko di ko jàngal samay xale samay samay étudiants mënuma bi ci topp moom ci boppam moom mooy wax mu ne ma dama jógee montagne sec dem wiir wiir bu fay ñu dem Gabon tuuti xam nañ ni montagne sec mi ngi nekk bi mu ni dafa jógee montagne sec dem wiir maanaam dafa toppaat yoon bi nga xam ni fa lañ jaarale sëñ mu ne bi mu jógee montagne sec bi mu yeggee xaw naa dee ndax maanaam dafa nekk géej boo xam même bu fekkee ni yow doo neer boo fa jaaree da ngay sonn ndax géej gi dafay yëngatu mu ni dafa neer a neer a neer bañ ko ni yow xanaa da ngay xam bay sànjaataa yo bay sànjoo fa yoon bi nii mu jóge wiir wiir dem lambee yoon boobu tamit gën a doy mu neer ba bi mu yegsee bu ne mu faatu mu ni kon bi ci des moom mooy lii moo tax man ma def sama parce que ki nga xam ne dañ koo jaarale yoon bi jëlee ko montagne sec jëlee ko wiir wiir jëlee ko wiir wiir mu yegg moom lu xalaat ni dafay faatu mu laaj xalima pour sant boromam pour sant euh, Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam mu ni kooku niveau bi mu toll niveau boo xam ne ku ko xam war ngaa ko def yokk ci moom. mu ni nag ndeket ko liggéey bi moom yëpp dafa ñëw ci yëwalal dundu doomu aadama parce que encore une fois ko ci mbirum koom day yëw mu ni liggéeyam yëpp dafa jëm ci mbirum yëwalal mbi euh, dundu doomu aadama mu nekk koo xam ne dafay nangoo liggéey dafay am pas-pas ci liggéey dafay am lu muy dunde li muy liggéey liggéey dafa am lu muy meññ ba nga xam ni kooku dundam dina yëwal na mu war mu ni këyit nag àdduna bu fekkee ni dañoo bëgg a am jàmm faaw ñu dogal suñu koom-koom te sëñ bi ci liggéey nekk na liggéey bu am solo kon dafa mel bu fekkee ni da ngay jàpp ñoom tubaab yi ñoom ci seen wàllu bopp ku mel ni Paul mu am nen euh, am ci diggante xeet ay gàmm nga mën a dugg kër ja ay gàmm ñuy gàmmoonte ñuy kalante. nee na bu fekkee ni loolu yëpp gis nga ko fi c'est que sëñ bi dafa ñëw fekk ko dëgëral moom Paul Marty di tubaab moom moo bind lu mel dafa mel ni am réew tamit ab pénc ko faw ñu tabax ko mu am jàmm waaye ku mu am jàmm jooju du loo xam ne da ngay dem ko gën moom mooy nga ñëw fekk loo xam euh, dëkk tabax nañ ko nga gën a dëgëral loolu nga gën a suuxat loolu parce que ñu ci bëri dañ naan nañu wuti jàmm nañu dem xool ci yeneen yi dañu dem xool américain yi dañu dem xool français yi dañu dem fekk nañu dem xool Sénégal dafa am na naka ko tabaxee ak kilifa yi ko tabax yan yoon la ñu jaar ba tabax loolu ñu daal di jéem a tënk suñu bopp ci loolu. kon nag ñu xam ni réew mënul am développement ci ko mënul am développement ci beneen aspect bu fekkee ne jàmm boobu liggéeyuñu ko suuxatuñ ko te bi ñu tàmbalee encore une fois ci yar doomu aadama ci euh, gunge nit ba muy nekk ndaw. tarbiya ko te loolu je crois que ñu nekk ci euh, li sëñ bi jàngale ci keppaaru sëñ bi tarbiya ko tarbiya ko toj xol bi ba nga xam ni jàmm rek lay gis jàmm rek lay wax jàmm rek lay da koy moytu lu da koy daw loolu nag dafa nekk loo xam ni am na solo kon liñ ci war a jàngat li ëpp solo moom mooy ab julit te wax naa ko sànq Maurice Dikaye wax na ab julit dafa war a dal nee na man li may li may opéré ay xol damaa gis ne xolu jullit yi dañuy nekk xol yu dal ab jullit dafay dal booy rawatina nag daal bi muy nga nekk jullit ba pare nekk ci keppaaru sëñ boo xam ni daf la woo ci jàmm daf la woo ci dal daf la woo ci jox cër doomu aadama maanaam même aadama lu am bakkan loo xam ni yàlla moo ko bind jox ko cër kooka jàmm rek lay dox kooku jàmm rek lay wax kooku jàmm lay yéene boppam jàmm lay yéene boromam parce que julli baax na lool woor baax na lool joxe asaka baax na lool waaye jox jël sa bopp jox jël sa moromu doomu aadama baax na lool tamit bu ko defee kon ñu góorgóorlu ci loolu parce que sëñ bi ci loolu la ñu la ñu la ñu la ñu indi lim ñu woo moom mooy ñu tënk suñu bopp ci gëm yàlla lim ñu woo mooy ñu topp sunnay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ji foofu laay foofu laay jeexale euh, fii laay jeexale euh, benn borom xam-xamu naar moom mooy dafa am benn sëriñ bu seet si woon sëñ bi bi mu ñëwee ñu xeelil ko ataaya mu ni naanul ñu jox ko lewal mu ni naanul ñu jox ko ñaareel mu ni naanul ñu ñu ni ko lu tax mu ni ndax ki nga xam ne moom moo defar ataaya dafa mel ni ñu safara nit koo xam ne wutul jàmm la bëggul jàmm moo tax naanu ma léwal naanu ma deuxième naanu ma troisième ak ma ca toog bi ñëwaat ñu xëy ko léwal mu naan ñu xëy ko ñaareel mu naan ñu xaali ko ñetteel mu naan ba pare daf di ñeenteel ak juróomeel bi ni ko lu tax daaw bi ñu la joxee naanoo ren bi ñu la dangaa naan mu ni ndax ci defar daaw dafa nekkoo koo xam ne nitu safara waaye ci defar ren dafa nekk nit ku baax nit ku yiw nit ku bëgg jàmm nitu àjjana la moo tax ma naan ñu ni ko ki defaroon daaw moo defar ren nit du nekk ci keppaaru sëñ bi daaw ba ren ñi des di nekk ñu safara loolu moom mooy tarbiya bi yaa xam ne moom la ñu def ci moom ba ci ko bi ñu soppi mu nekk nit koo xam ne dafay wutal nit ci jàmm maanaam dafay jox nit ki jàmm dafay jox nit ki cër dafay dafay dafay yéene nit ki moom li mu yéene boppam maanaam lu mu yéene boppam rek yéene na ko moroomu doomu adama loolu nag moo tax ku mel ni Sheldon Gellar wax naa ko sax Sheldon Gellar moo américain nee na Sénégal bu ñu tënkee seen bopp ci njàngale bi jàpp moo ko yar ak dal waaye nee na bu seen bopp ci moom moo fa yar mu ne lu weesu réew yi nga xam ne ñoo wër Sénégal nee na àdduna bi bu ñu tënkee seen bopp ci njàngale sëñ bi jàpp moom moo fa yar kon nag dafa mel ni tey jii dafa dafa dafa jot sëkk ñu xam sëñ bi dëgg dëgg jàngale lan la fan la jublu bu ko defee nit ñu góorgóorlu tëgg suñu bopp ci loolu bu fekkee ne bëgg nañu jàmm ci suñuy réew bëgg nañu jàmm suñuy pénc bu fekkee bëgg ci àdduna bi gën nañu ba tey ji dañu ni même réewu jullit yi parce que boo ko defoon jullit yi yenn saa yi ñu am ay wuute ci ni ñuy jëfe même ci wuute yooyu dañoo ne nekkee pratique bi nga xam ne boobu pratique bi indi jàmm indi dal di boole nit ñi ñu bokk benn bopp parce que ñoom ñëpp ay jullit lañu ne nañu pratique boobu la ñu dem seet ko ci jàngale sëñ bi kon solo bu fekkee bi sëñ bi def ñi ne ñu ko ci jàmm jëmale ko ci stabilité jëmale ko ci dal parce que dafa nekk loo xam ne dañ koy wax mais bu amul ci réew amul dara loo xam ne mën fa am bu fekkee ne jàmm amul ci réew te tey jii boo ko seetloo Sénégal wax yenn saa yi bu ñaaw boo réseaux sociaux yi nga dugg Facebook nga dugg nga dugg WhatsApp nga dugg Twitter nga lépp fépp Instagram ay waxante yu ñaaw ay saagawante ay takkal nit ay ñàkk deru ay saag yu mel noonu réseaux sociaux yi boo génnee ci biti nga gis ay agression boo yegg sa saag rawatina jigéen ñi di dox ci benn bi boo moytu dina am ku këf sa saag fitnaal la agressé la bëri ci ci ci réew nga gis moo xam yenn saa ay kilifa la ñu sax taxaw di waxante ci ay wax bu ñaaw di sànnante ay xeer di toj nga am sa alal di ci liggéey di ci suturu ñu ñëw toj ko ñu ñëw yàq ko loolu yëpp nag dafay tax am réew fa mu war a yegg du fa yegg réew moom nag ba mu yegg fa mu mën a yegg faw nit ñi daal di delluwaat xoolaat seen bopp li may yéene sama bopp ma yéene ko sama moroomu doomu aadama ma jàng ni man sama moroomu doomu aadama moom nekkul sama nekk du benn borom xam-xam bii ñuy wax Platon nee nit bu matoon kon du dund ci société bu ñuy dund ci société c'est parce que man xam naa ne am na lu ma mën mais am na lu ma mënul loo xam ne sama morom doo ko ko mënal pour que loolu mën a sotti faaw moom mu jàpp ci comme nag naa ni sama morom faaw mu jàppale ma pour man ma mën a dem kooku war naa koy jox cër fu ma fu ma toll du nekk loo xam ne dama koy wax rek waaye dafay nekk loo xam ne dama koo gëm ñu gëm nag ñu taalibe murit ni ñu sëñ bi formé ak yoon bi nga xam ne moom la xàll ak ki nga xam ni fa la teg tànkam ba tubaab bi seen bopp daal di àdduna bi ko bëggee jag nañu dellu ca moom kon ñun ñi nga xam ne ay taalibe lañu kenn war nañoo jiitu ci loolu kii ñu tudd Philippe Couti tubaab Philippe Couti dafa xool tubaab yi daal di lu mala yi dul def sax maanaam tey jii am na ci dëkk tubaab yoo xam ne dañuy sëy doomu tubaab doomu tubaab mooy doomu tubaab yi ñuy nga di ko yàttal ma soxla mu yàttal la soxna nga ànd ak moom dem ca meer ba daal di ko kii moom mooy sama soxna ñu defal leen pénc ku ku jigéen ñi dem yàtt lu borom kër nit yàtt ko ni kii moom mooy sama borom kër dem ànd ak moom ca meer ba ni kii moom mooy sama donc façon ñaawteef bu ne yaa ngi koy gis ci seen réew ñoom ñu dem ba ni ñun de bu ñu deful nag moom mooy wul mala dinañu tane loolu kenn ci ñoom ku tudd Paul Valéry ko moo tudd loolu moo ni nous autres civilisations nous savons maintenant sax ñi ngi def lu mel noonu mu sax fu ñu dugg jamono ji ñuy ku tudd Philippe ci ñoom yàlla dimbali ko mu jógee France ñëw Sénégal dem Touba dem Daaray Kaamil am lu mu bi mu delloo ci dëkk ba moom moo leen wax ni bu ñu bëggee gindiku nekk dëgg-dëgg ay nit yu nite nekk ay nit yu baax dañ leen takk suñu nit yu jubali yoonu Touba kooku mi ngi tudd Serigne Moussa waaye kon ndegam Touba bi ndegam ñoom Touba ñoom ñoo wax loolu boo ndegam ñoom ñoo wax loolu rawatina ñun ñii donc ak taalibe murid waxuma la taalibe murid euh, kii nga xam ni jàng na wala mu xam tuuti ci lu sëñ bi santaane maa ngi lay wax léegi ki nga xam ni Gabon la ne nga xam ni nee na sax moom du jullit waaye yàlla dimbali na ko mu am lu mu daataan ci li nga xam ne moom la sëñ bi bind mu ni kon nekk ni dëgg dëgg yoon bi ci lañ war a jaar kon nag ñu góorgóorlu ñun ci suñu comportement par rapport ak ñun jàmm nit ki mi ngi koy créé ci digganteeg moom ak boppam ba pare balaa muy wutal jàmm kenn moom na wutal jàmm boppam ba pare ginnaaw bu mu wutalee jàmm boppam ba pare di wut lu baax pour moom ba pare di xalaat lu baax pour moom ba pare ginnaaw bu mu defee loolu nag da koy defal doomu doomu aadama da koy defal moroom doomu doomu moroom jullit nga jàpp ni jàmm rek moom mooy li nga xam ne moom moo koy jëmale mooy defar pénc mooy defar njaboot bi te loolu buñ ci weesoo ñu taataan ko jox ko suñuy ñooy jox ko suñuy xale xale yi tamit ñu nàmpatal leen ci loolu waaye nag ñu ngi commencé di nàmpatal suñuy ndaw yii nga xam ne moom dañuy jàngal suñuy ndaw nekkul roy bu baax ñu ngi leen di jàngal saaga ñu ngi leen di jàngal wax wax bi waaye nag bis bii dafa am ñu ko tuddee di leen ci am ñoo xam ne dana def ñuy mare nii foo ma seere ma yaay sëñ Muntaxa ci ku xool image bi sëñ Seexu bi def ak sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa dafa ne wax ma noo ko bëggee ma defee ko noonu xool nañ image tey sëñ Muntaxa daal di yëngu sëñ Seexu bi ne ko wax ma rek noo ko bëggee ma defee ko noonu kon nee na moom nga seere ne moo ngi sant bu baax a baax soxna Bally Muntaxa nee na moo ngi sant bu baax soxna Baay mu Cheikh Souhaïb waaye nee na maa ngi sant bu baax soxna moom i Kébé bu Serigne Saay maa ngi sant bu baax madame Mariama Sall ministre ak Amaña Kessel à l'Assemblée nationale waaye moo ngi sant soxna Sophie Ndiaye Sissoko waaye di sant Cheikh Yacine Dougouré ak soxna Yacine Ndiaye Samb ak soxna Anna moom ca Gamom taalim Sëñ Bamba waaye di sant Cheikh Malick Sène taalibe seen Cheikh bi Mbacke Fadil Mbacke waaye moo ngi sant soxna May mun a ba si da Aliou Sow ak soxna Soole Ndiaye ak madame la maire Mari Ndiaye ak soxna Fatou Koulé nee na moo leen sant bu baax a baax soxna mel na Fall soxna Khady Fall boobu xidmatul Khady nee na moom koy. Fadal sa waa ji tedd ji suñu soppe ji li ci des. nga jël fi engagement Cheikh Khadim Lo Gaynde dompat ci sot la bokk sëñ am satu Mbàkke dompat ci sot la bokk soxna Maam Bousso dompat ci sot la bokk dañoo bëgg mbër yi président Macky Sall tànn Pikine boole ma ci pour ñu dem assemblée nationale nekk ay waayu Sëriñ Fall ay waayu Cheikh Ibra Fall ba ñuy wooyee maire Baye Fall dañoo bëgg suñu yaakaar bii ñu dégg la ak suñu chef de comité ngeen ne ñu ah non. loolu mooy sécurité Sénégal loolu mooy stabilité Sénégal parce que adduna bi nekk ci guerre Sénégal tarul ay cohabitation ay parrainage gouvernement li xew Liban li fi xew dëkk kenn du tal dara la première stabilité c' est une majorité confortable pour ki nga xamante ne moom la tuddee bés bi le président de la République loolu laa la bëggoon wax Seydou di ci jéggul ndax gudd naa li wax nag maa am sañ-sañ wax ko fii laa ko yaakaar fii laa ko ñaanee ku nga yaakaar feneen demal feneen wasalaam jërëjëf monsieur le maire Amadou Diarra jërëjëf monsieur le maire Abdoulaye Timbo waaye sëriñ Cheikh délégation Cheikh Mamadou Mourtala dañ maa indi laaj bataaxal ñama délégation ba tey gis na ngeen fonk gi ñu fonk bis bii tey Serigne Ahmadou Bass mii toog ci délégation bi la bokk maa ngi moom ñoo siyaare ji woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Abdou Samad moom Cheikh Soy bi moo ñu yóbbu woon jërëjëf El Hadj Abdou Bass ñoo bokkoon benn ndékk Serigne Kamb Gueye ci délégation bi la bokk Serigne Abdou Lahad Falilou moom Cheikh Mamadou Mourtada ci délégation bi la bokk sëñ Cheikh mooy ñi nga xam ne tàmbali ñu waat léegi ci liggéey bi waaye sëriñ Cheikh noo ngi seedeel ne noo ngi santaat bu baax maître lii Kaba notaire sëñ bi danaa bëgg lool danaa fonk lool waaye danaa jàpp lool maître lii Kaba nee na bis bi am na ko yëpp sëriñ Sidi moom Cheikh Abdoulaye da ko ne kër ci yëpp laal gii yow yaa fi am appartement boo xam ne caabi jaa ngi sooy dem tëjal boo ñëwee ubbi ndax sa maa ngi doon moom Cheikh si Abdoulaye laa ko muy maître lii tabax nga jàpp ko ngir sëñ fan mu jàpp la ngir sëñ fan nee na sant na la gërëm waaye maa ngi jël kàddu gi di ko jox njabootu Cheikh Mouhamadou Mourtada cëy ba na si yéen a sagal sëriñ Cheikh yéen a bëgg seen bokk sëriñ Fallou ak sëriñ Mourtada rek la xanaa xamoo ne li tax tey sama xel daraat mooy ñu plateau yi parce que démb damaa ko damaa dégg ci plateau bi mu wax loo xam ne sama xel tey jii jiitoon naa ci nee na Cheikh Mamadou Moutada daa ñëw ci Serigne Fallilou bi mu ñëwee ci Cheikh Mamadou Fadal nuyoon ak Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nuyoon ak moom mu ne ko alhamdulilahi rabbil alamin bi nga tàbbee ci kër gi ndax boobaag léegi dañoo maral damaa bëgg nga ñaan saa borom ñu am ndox. Cheikh Mamadou Mourtada ñaan dëkk ba taw ba tooy xepp tey jii ñu tuddee Cheikh Mamadou Mourtada lii ak Cheikh Mamadou Fara dëkk bi tooy xepp xepp xepp kon looloo di tax tey Cheikh Fallou Cheikh Mamadou Mourtada Cheikh Fallou Cheikh Mamadou Mourtada Fala Bara war naa mën a ne ku leen neexoon ngeen wax ak sama borom ndax jubóom ngeen ak moom ñu leen téye taw bi waaye da ngeen a bàyyi muy tàkk yéen suñu xel dalaat la ak Serigne Touba yéen a jubóom ñu kaani waaye donc di ngeen bàyyi ñii rek a baaxee ñii dañu daw ñii dañu daw di daw ñii yow la ñu yaakaar ñii yow la ñu wóolu ñii yow la ñu maa ngi joxaat kàddu gi maa ngi joxaat kàddu gi njabootu Cheikh Mouhamadou Mourtada kii may jox kàddu gi mooy sëñ Abdou Yerawaay Mbacke mu Cheikh Mouhamadou Mourtada sëñ bi yow la ñu déggoo ndeysaan ñëwal nii nit ñu xool la ba ci yërmande bale sa bi sëñ Cheikh Seydou bu ñu bindee njabootu Cheikh Mouhamadou Mourtada te juguma nekk ci diaspora bi doon témoin vivant le neveu de Cheikh Mouhamadou Moutala pendant vingt quatre ans bu ñuy góobale kenn du ma ëpp aw sax Mbacke sa way juru baax moom exporté mouridisme sa way juru baax moom la ñaanuk Seexul ci moom di sukkuri wa rida yaa waasihan wasatali bi Moutala Mbacke sa way juru baax ci inni uxaatibu nasaara turra fii abdihi dibaani ki mu tarra te xamoo bi arini abdul ilaahi wa xadimu li rasulillahi amérique nooy la cheikh mouhamadou moutada europe nooy la cheikh mouhamadou moutada afrique nooy la cheikh mouhamadou moutada italie gëm a gën a miin am na fukki kër Serigne Touba ak juróom-ñaar ba ci mujj le 17 juin bii la avec Serigne Mamour mu inauguré ko 250 mètres carrés yaatu ba ci soxna Moussa Moussa Moussa Moussa Moussa Moussa Moussa Moussa Moussa Moussa Moussa Moussa Moussa Moussa ab cër borom kenn du ko nekk li sëñ Tuubaa daa boole nasaraan yi akum caatam bu fekkee ne seen réew tuubuloo nasaraan li jubiloo leen defaloo ay baaxoon wax leen laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sëñ moom moo laa ko liggéey tuuti ak wéy la ak dakko ak tuub bu desee ko góor góor bala nga muy batal soxla dara si si bakk maaram suñ fan sama gee baax sëñ Mamour Deme déw le président Macky Sall de l'histoire du Sénégal ki njëkk a décrété bisu Serigne Touba ci Europe le 8 juin 1999 moo ànd ak Serigne Mamor dem Palais muy Faustino Gatta président Macky Sall takkal ko lan ordre national du Lion ku mu ko defal Serigne Touba ndax moo njëkk a décrété bisu 8 juin bi nga xam ne bu yëpp xam nañ ko ci Italie ba nga si Serigne Mbacke Maram Mbaye li nga def xam sëñ Fallou Cheikh Mahamadou Moussa mooy sama baal yàlla bis bi yàgg maa ngi jégalu bu baax. le monde entier ne politique et le débat bi asran de bopp ak toujours à Cheikh Mouhamadou Moutala ndax moo tax l'islam dem ci Europe da nga xam ne bu tubaab yi amoon la ñu bëgg ñun bu ñu am la ñu bëgg la sëñ Tuubaa am na la. alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokki jullit yi teew mbokki taalibe yi mbokki yëkkati kàddu nuyoo bu ànd ak ziar mu bàyyi ko ci suñu kilifa bu baax ji di Cheikh Abdou Khadir ak ak njaboot mu àndal ñëpp di soxna Maam Kari Mbàkke moom sëñ Mourtada di Cheikh Abdoulaye Yawaay moom sëñ Mourtada ak wàllum njaboot gi mu àndal ñëpp ko léegi ci délégation bi di yëkkati ab nuyoo di ko jëmee ci mbooloo mi waaye Serigne Cheikh bi Mbacke moom Cheikhul Khadim di ko sant bu baax a baax ci taxawaay bii nga xam ne yëngu bi lépp ci yàttali ak yaatal rek la jëm liggéeyam Serigne Touba Khadim Rasoul Cheikh Mouhamadou Fadil nag ñëw na teewal fi kilifaam yàlla teg ci bopp njabootu Serigne Mourtada muy Serigne Mame Mor Mbacke Mourtada ñuy ñaan bu ci ànd ak ak mboolem njabootu Serigne Mourtada gépp bis di bis boo xam ne mu ngi dox ci njabootu Serigne Touba ba ëgg tey ci kër Serigne Mourtada Serigne Mourtada nag di koo xam ne defe naa bu ñu fàttali ko ci dundam tuuti rek maanaam doy sëkk ak yóbbal bu ñu jëmee ba ëllëg moom day dundam joxoon na lépp suñu boroom te jeexal na ko itam ci toolum lislaam lislaam moo di ay waxam lislaam moo di ay jëfam lislaam moo di ab yëggutoo lislaam itam la jox alalam l'islam la jox léppam bari sëriñ Tuubaa moom Cheikh Abdou Mourtada taxawaay bi nga ci yaasal sunna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba mu jaaraloon ko dékku la mu ak tase ak la mu daan tase lépp jëm na ci bopp boo xam ne waar wi fii la ko tàmbalee ci Sénégal di ko bay ba génn ci réew yi nu digaloon di ko bay ba jàll ci réew yi Europe yi di ko bay ba lislaam yaatu fa yaatuwaay boo xam ne jégg na dayoo fi ñu toll loolu lépp lu ñu ràññale ci liggéeyam Sëriñ Mourtada ba mu xamee ne diine ji rek du diine yi làmbatu du diine du ñuy tàkk ak a teg ci am xel diine yi jàngal ak xam-xam di jaamu yàlla ci yaqiin la taxaw kenn ci sos ay école ay daara ay jànguwaay ci dëkk yi ba amul benn barab booy teg sa tànk ci Sénégal te fekkoo fa jànguwaay yooyu waaye noonu la mel ci réew yi des yépp nag ba nit ñi mën a jàng mën a am xam-xam mën a tàggoo akub réer mën a teg sinu jaamu yàlla ci aw yoon ndax jaamu yàlla kat faw dafa war a tege ci aw yoon te loolu dara mu may nit lu xam-xam loolu moo waral yitteem jëpp mu def ko ci jàng ak jàngale mësta yemale jàng ak dara mësta yemale jàng ak dara jàngale ak dara képp koo xam ne am na ci yow cër loolu rek la lay digal sax ci jàng ak jàngale sax ci jaamu yàlla ak lislaam loolu moo waral dundam gi fa tabaarakallaahu gàttul waaye dundu coono rek la woon na ndax âge bi mu tolloon nga ko ca réewi Europe yi di ko séen ca gaare di ko séen ca marché di ko séen ca place publique fenn fu nekk mu fay dégg tànkam di dem cawarte ak yaram toppatoon jóg di tukki toppatoon waaye jóg yàq ci lislaam rek kon yàlla na yàlla fayal ko te nu jàngat nag bu baax a baax ci dundam ndax bis bu toll nii bu tuddee jëmm faaw ñu jàngat as lëf ci ak dundam lu ñu mën a mooy Cheikh Mourtada bu ragal yàlla lool. Cheikh Mourtada bu fonko sunnas rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lool Cheikh la di ko jëfee di ko waxee itam. Cheikh Mourtada bu moytu woon ay caaxaan la bu moytu woon am pola bu moytu woon góorante la daawul yar kenn sax ñu lay séentee mel noonu ku bëggoon yàlla na bëgg bu wér ku bëggoon yonent bi na bëgg bu wér ku bëggoon sëñ Tuubaa ba yemale ko dara xamatuma nit noflaay adduna mu mus ci ab noflaay adduna mu mus ci ab noflaay jëmmam ji da koo jàpp rappal ko rappal rappal ko boo ko xoolee di ko yërëm waaye saa yu jigee jëm ci boromam mooy gën a sawar ndaw lu mën a doon ko fii nu toog nii njabootam gaa ngi nii di xeeñ ko ay jéego ak di ko topp taxawaay bu rafet ba nga xam ne moom la mel taxawaay bu rafet ba nga xam ne moom laa ñu wax loolu waral na réew mépp dañ ko fi demee di nga fekk résultat yi nga xam naa dara foo taxaw fekk fa ay daara ay jànguwaay ay boroomi xam-xam yoo xam ne koo tudd mën a ci économie laa génne loolu wane na ne lan doon liggéey itam suñu borom defal na ko ci ndam bu wér am na ci tawfeex bu wér a wér a wér kon sëriñ Cheikh Oumy Mbacké bu jëlee bis bi tuddee ko ak Cheikh Mamadou Mourtada ba noppi sëriñ Fall moom sëriñ Mourtada ñëw loolu daal day sëkk ñu ne kii toog njabootu sëñ Murtada la ku mu tudde sëñ Fallu bii waaju sëñ Cheikh bii nga ne mooy woote bis bi loolu buñ bëgg a wax ci relation yu doy na sëkk ñu ne sëñ Fallu ku bëggoon njabootu sëñ Tuubaa gi la ku fonkoon njabootu sëñ Tuubaa gi la te loolu lépp bëgg sëñ Tuubaa la yemale lu tax sëñ bëgg gi bëggan sëñ Murtada ak fonk gi mu fonkoon sëñ Murtada ak fonk ko tegoon boo demee kër sëñ Fallu fekk fa sëñ Murtada boo demee kër sëñ Murtada fekk fa sëñ Fallu sëñ Mourtala yi nag topp ci gannaawam sëñ Fallou di kilifaam mu jël kilifteefam jox ko te mosu koo jël mosu koo bëgg seen saal ba tey jii relation boobu des fi kilifa yu tànn yii nu fi dese di ko topp di ko topp ba wër si fii yàlla bi yàgg am lool te ñu yàgg koo fekkee lool te lépp luñ fi amee ci aw yiw yàlla dal ci ñaari jublu ba bari lool ba ne gàññi te daal ci mbooleem ñi nga xam ne ñoo koy taxaw ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jégalu kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf alhamdulilah Amadou Bass noo ngi lay sant bu baax waaye noo ngi lay gërëm mu mel na sëriñ Cheikh dañuy santaat bu baax rek sëriñ Khadim Diagne sëriñ Mbacke Soxna Lo moo jiite délégation bi tey jiite cortège bi at mu ne day jël ay oto ci parking am yëpp ni sëñ Cheikh dugg ci oto bu la neex yeneen ñi ne dugg ci oto yi ñu jiite cortège bi motaar yi jiitu ci Grand Théâtre te tey jii ndox bi bëri na jërëjëf sëñ Xaadim sëriñ Modou Ndoye yooyu noonu lay sant bu baax di la fi bàyyi ko um sëñ Modou Amity Fall sëñ Ibrahima Faye sëriñ Ngay Mbuub jërë ngeen jëf ci taxawaay yi ngeen taxaw alaaji sëriñ Cheikh bi Mbacke Fadilou léegi maa ngi jëm kàddu gi di ko jox monsieur le ministre surtout bu sir ku ma doofin bii toog alaaji sëriñ Aaruna ku ma doofin Diouf màkka la tey lay tey lay doog a président tey la koy doog a yéegi ci manifestation waaye màkka la bàyyi ko di surtout bu sir ku ma doofin monsieur le ministre président yónnee na la neex ndax yow fi nga dëkk alaaji baara sëñ Cheikh mi dafa daan àndal di fa dem jaxaw alaaji baara miin na ko lool ak sëñ Cheikh mi bàkke fàttali waaye sa maam moo jëloon maam Soba rek ne dama koy tayle ngir sëñ Touba kon yow war ngaa mën a ñëw ci njaboot sëñ Touba vous avez la parole monsieur le ministre alaaji aar ko mën nga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 sëñ Cheikh Oumy Falilou le président de la République son excellence monsieur Macky Sall moo ma yabal fii ngir ma teewal ko sant la jottali la li nga xam ne moom la nëbët ci réew mi nga ñaanal maa ngi jël nuyoo ak nuyu gouvernement bu Sénégal di ko teg ci loxo suñu sang bii ñu fekk muy sëñ Falilou Mourtada mu joxal ñu ko sëñ Muntaxa yàlla na ko ak képp koo xam ne mbàkke mbàkke nga te nga teewee bis président de la république son excellence Macky Sall mu lay fettali kóllëreem ci xarit boo xam ne am ngeen ko ay at boobu nekkagul président de la république mu gis ci yow nga am vision vision weesuwul Sénégal bii nga xam ne soo jëlee téeméeri sénégalais